auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani bi barakati maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabu Muridina mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu di leen ziar baax sunu nuyoo sunu cant ak sunu ngërëm ñu ngi koy jiitale ci Serigne mu yàgg fi loolu ko ñaanal xaritam bu soppam bu wërale woo Serigne Amdi Fall moom Serigne Modou Mbend Fall di ko ñaanal fan bu gudd ak ak kàttan ak ku li maam Cheikh Ibrahima noonu la ñuy ziare mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax fépp foo xamante soppe Serigne Saliou ma nga fa ñu ngi lay nuyu di leen ziar baax a baax ñu am taxawal liggéey bu am solo boo xamante ni ñu dippee ko fondation xidmal Serigne Saliou di ay ndaw yoo xamante dañoo taxaw tem ci liggéeyal Serigne Saliou mu doon ay dongay tarbi yoo xamante ni ñoo ko sos li ci dooleeku tamit di ay soppe yoo xamante tamit dooleeku nañ ci liggéey bi di def liggéey bu am solo xam naa ni tax balaa kàddu gee gën a yaatu gën a biir dañuy jox bu baax baax suñu den Saalim mi nga xamante ni moo yor wàllu communication bokk ci nga xamante ci membre de communication yi la bokk ñu jox ko mu daal di nuyoo a tàmbali liggéey bi sëñ den bisimilah. asalaamaaleykum mbokki yi mbokki taalibe yi ñoo leen di nuyu baax a baax di leen jaajëfal di nuyu tamit sama kilifa yi xam ne fii nii ah, ñoom te ñuy si turu fondation Xidmaat Serigne Saliou na ma bokkoo ci communication ah, lépp loo xamante ne li war a jàllale bokk nañ bokk nañ si ñu xam ñu koy saytu. communication nag ku ko dégg ko ne moo di lépp loo xamante luy war a jàll lu nekk foofu la nga koy mën a jàllale ngir ñëpp mën see gis seen bopp liggéey bi tamit fu mën a àgg fu nekk waa communication tamit danañ si def seen wa euh, seen waruwaay lu xamante ne lu ko jar a jar kon boog seen as dañ lay delluwaat kàddu bi ba koro muy yegg siwaat si ñun jërëjëf ni nga nuyoo am na solo bu baax a baax euh, ci kàddu yi nga xamante ni yaa ngi koy jotali ci li nga xamante ni mooy wàllu communication ku ni programme wala nga ni cant wala nga ni lenn loo xamante ni da nga koy jaayante di ko def bu ji organisation amul yaakaar naa wala li yaakaar naa loolu du dox kon ñu lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan san borom suñu borom defuñu ñu ko tàmbali ci liggéey am ci lu kawe suñu njort ci barke maam Serigne Fall ba mu diine xam naa suñu ñaareelu nuyoo dañ koy jaare ci nga xam mooy sëñ yor wàllum culturel ku ci nekk xam nga ne Serigne Saliou bu ñu koy taxalu ab liggéeyam alxuraan ak xasida yi sëñ Bamba yaakaar naa te moom mi nga xamante ni moo yor li nga xamante mooy saytu li nga xam mooy kuréel gi nga fondation xidmaal Serigne Saliou mu am ci taxawaay bu am solo ban jël li nga xam mooy mu nuyu rek ñu soog a wéyal sëñ Mara ñu ngi lay nuyu jërëjëf ñu ngi lay delloo am nuyoo di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di nuyu mboolem ñi ma bokkal plateau bi di ñaan laat Serigne Cheikhoum Serigne Saliou mu yàgg fi loolu te gën a wér di ñaanal Serigne Saliou Mbacke jëwriñ daara Ngabou saa borom yàggal ko fi loolu te gën a wér waaw comme ni nga ko waxee rek suñu as noonu rek la demee Serigne Saliou moom jàpp naa ni boo koy liggéeyal ah ci loolu rek ci loolu mënu cee ñàkk lu mel ne xasida yi ak alxuraan ji moom moom moom moom moom léppam la woon kon nag euh, ñun ñor wàllu googu kon xam naa ne sunu nuyoo foofu lañ ko yemale rek incha allah ba kàdd gi ñëwaat ci ñun ñu gën cee yaatal ñëpp soob na yàlla jërëjëf sëñ Mara ni nga nuyoo am na solo bu baax a baax ñu ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax ci taxawaay ak pas-pas beeg jaayante gi nga xam ne yaa ngi koy jaayante sa diggante ak sëriñ bi xam naa ne sama wetam di joor maa ni moom it dina wax ci li nga xamante mooy kàddu daara ji ak kàddu li nga xamante mooy fondation xidmal sëriñ Saliou taxawaay bi ak solo ji nga xamante ni moom la ci war a taxawee sëñ daaw ñu ngi lay jox kàddu di la nuyu di la ziar waaleykum salaam wa rahmatulah taala wa yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bëggee ñëpp di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di jiital si nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalifa général képp kuy murit di ko ñaanal mu yàgg fa lool te ànd ku wér naka noonu la ñuy nuyoo suñu bunt si yoon bi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké Saliou mii suñu bunt si Serigne Saliou mu yàgg fa lool te ànd ko wér di leen si turu fondation xidmal Serigne Saliou waaw di wax ne wa axrina yaa rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa ma jërëjëf jërëjëf sëñ Daawda ni ngi nuyoo am na solo bu baax baax ñu ngi lay jaajëfalaat xam naa ne ñëwaat ci yow léegi ci kanam incha allah xam naa ki ci topp tamit ñu ngi koy jox moom it nga xam ne moom it pas-pasam ak jaayanteem ci daara yi fondation Xidmal Serigne Saliou ku ci nekk gis na ko ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ni koy dox mu yaakaar naa bu nee rek wax organisation ndax yaakaar naa mbooloo mu ci dox rek communication ak bokk na ci li nga xam ne ñoo koy doxal kon it loolu ñu gën cee waat xel bu baax a baax te defaat ko suñu yitte mu mel ne Serigne Mour bu sa njëng moom nga xamante mooy wàllum li nga xam ne mooy organisation xam naa dañ koy jox ay kàddu yu rek mu daal di nuyoo ñu daal di wéyal li nga xamante mooy taxawaayu pas-pas bi nga xam ne moom la ko war am fii ci daara ji. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh wasalaatu wasalaamu ala allahi dal amin sayidina wa maolana mahamadul makin wa ala alihi wa sahbi sa ridwaan wa tamkin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi seen mbokkum taalibe yi moo bis ñu nga moo leen nuyu di leen ziar di nuyoo ci turu fondation Xidma Cheikh Saliou Mbacké ah mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu ci taxawaay bu am solo bii ku ne xam na ni mbooloo la ko lu ne rek maanaam ci organisateur ca lay tàmbale kon ñu ngi santaat yàlla bu baax ba ñu amee tàmbali ci tàmbale bu rafet bii nii nga xam ne lépp sëriñ Saliou la kon mbokki taalibe yi xam naa ñu ngi yemale foofu kàddu ba mu yegg si waat bu soobee yàlla. jërëjëf sëñ Mour bu sa njëng kàddu yi rafet na am na solo bu baax a baax xam naa ne dinañ déglu si waat ci yow ci yeneen ay ponk yoo xamante ni war nañ koo leeraat bu a baax. Euh, kon loolu ñuy gënaat cee bàyyiwaat xel bu baax baax ba tey mbokk ñu ngi fii ci fi nga xam mooy nga média di def liggéey bu am solo boo xamante ni ñu ngi koy taxawal dool dolli ci li nga xamante ni moom la Serigne Saliou bëggoon ci ndongo yi ñu jéem ko taxawal fii ci fondation Xidmal Serigne Saliou di ay ndaw yoo xamante ni ñu ngi taxaw teem ci liggéeyal Serigne Saliou kon ñu ngi leen di jaajëfalaat ñëpp ñi nga xam ñu ngi teew teewlu ci biir réew ak ci bitim réew ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar bu baax a baax di jox euh, suñu benn mbokkum taali bi moo xamante ni tamit moom it ab daayira wala nga ni fondation wara nga ni leen am mbooloo di daje rek safek sëñ bàmba gi da cee war di jib baax a baax si ñu ma ne sëriñ seexu naa mi nga xam ne moom sunu sëriñ xam naa ni moom dañ ko jox kàddu mu wax ci li nga xam mooy wàllu axlu café mu nga seen kàddu mu daal ci soññee xam naa day nuyoo ba pare bu ko defee ñu daa di ñëwaat ci ponk boobu Ahmadou ñu ngi lay ziar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëñ As ñu ngi lay nuyu di la ar di ziar mbokki jullit yëpp wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina moolaana muhammadin xaatimi nabiin wa imaamil mursalin xam naa dañuy yemale foofu suñu kàddu rek ba kàddu gi dellu si waat si ñun. jërëjëf Ahmadou sunu ñu ngi lay doole ziar bu baax baax ba tey mbokk yi comme que mbokki bi yëpp ku ci nekk ci ñun nuyoo nga daal di dàggeewaat li nga xamante ni mooy ku ci nekk ci yow li nga yor ci liggéey bi. mu mel ni liggéey bi yaatu na yaatu boo xamante ni day soo ko door waane xëy na yaatu na yaatu goo xamante ni ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax di ci gërëmaatal bu baax a baax Serigne Saliou mi nga xamante ni moom lañu jëfal mu mel ne tey jataay bi tey bi émission Zikru laa la waroon doon waane mën na ni fondation bu soxlaa rek muy fondation Xidmal Serigne Saliou bu soxlaa rek keneen ku soxla da ngay ñàkk mu mel ni lépp sotti ci ak def ci ndax maam Cheikh Ibrahima Fall la ñuy liggéeyal te maam Cheikh Ibrahima Fall ki muy liggéeyal mooy Serigne Touba Xaadim Rasul te ñun ay ndawi maam Cheikh Ibrahima Fall lan kon bu Serigne Touba soxlaa rek dañoo war a dem ci li nga xam mooy liggéey Serigne Touba bu noppee soo ko jàll ci li nga xamante mooy bëgg-bëgg maam Cheikh Ibrahima ba mur diinam xam naa dañuy jox kàddu gi Serigne xam ne moo xamante ni waa communication war nañ cee am ak li xamante ni moom la mooy li nga mooy rôle communication xam naa dañuy jox Serigne Mouhamadane moom it mun gën cee gën a xamal lan mooy taxawaayu daara ji dan bismillah Euh, salaamaaleykum comme ni ma ko waxee woon rek sànq di nuyuwaat sama kilifa yi toog waaw communication nag ku ko dégg ku ne moo di xam ne lépp lu xamante ni lu war a jàll lu nekk ñoom ñoo ko war a di jàllale euh, lu ci mel ne ay fo ay nataal ñoom ñoo koy ñoo koy joxe ñoo koy jël ci biir daar ji di ko tasaare ak mbokk taalibe yi ngir ñeneen tamit mën cee gis seen bopp ngir ànd ak ñun ci biir liggéey bi. Euh, lu ci mel ne tamit li nga xam moo di ay ay ay mooy vidéo yeeg ak bépp image fu mu mën a tasaaroo lu nekk mën naa wax waa communication ñoom ñoo yor wàllu woowu moo tax lu mu ci mënti doon lu nekk danañ ko saytu bu baax a baax bal moo mën a jàll ndax image dafa doon loo xam ne dafa dafa doy waar moo tax it ñun ñun à chaque fois ci loolu la ñuy fas yéene di liggéey di ko ànd ak jëwriñ bi xamante ne moo jiite communication mooy jëwriñ sëriñ As moom lépp loo xam ne du war a jàll dana ko jàllale mu fekkee ci groupe bu euh, soxna yi bu ñuy wax soxna Nogay moom mooy jàllale yu mel noonu ak euh, soxna Alima comme noonu tamit la nga koy defee saa su nekk jërëjëf. jërëjëf sëñ Mouhamadane li nga leeral am na solo bu baax a baax mu mel ni tamit duñu la bàyyi waat dañuy ñëwaat ci beneen ponk boo xamante ni taxawal nañ ko mu mel ni tamit li ma gis ci daara ji mel na ni dama am ay daara yu bëri yu ma bokk maanaam daa mel ni gisuma ci loolu mu mel ni góor ñi ak jigéen ñi dañoo bokk benn groupe di nasandoo di sottandoo waaye ñun dañoo jël li nga xamante mooy groupe WhatsApp def ko ñaar def soxna yi fee def góor yàlla yi fee te ñu ngi ci biir groupe général bi mais tey dañ leen a beral seen groupe bopp boo xamante ni ñoom ci la ñuy nas di ci nocc kon mel ni liggéey bi ñu ngi ko saytu saytu goo xamante comme li ñuy wax ci diine rek góor ak jigéen waruñuy jaxasoo ku sa soxna kon mu mel ni gars yi ci loolu lañ tënku ci waaw loolu moom lu ci mën a indi leeral ndax euh, Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké euh, bépp daaraam boo mën a gis bu nekk dafay indi ñaari parti moo di euh, ci biir këram mu fekkee day def fi kees donga yi def fi keesu soxna yi en même temps tamit soxna yi léegi-léegi dana dugg ci biir ci biir keesu góor yàlla yi waaye saa suñ si duggee leen rek mooy seen waruwaay lu ci mel ne dañuy ñëw du joxe ay ñam daay génnaat waaye tamit daanu promettre kenn ko xamante ni day jàll ci biir daare so soxna yi ndax loolu sëriñ bi dëkk ñun tam ñu xam ne ñun nag ci waa kër Serigne Saliou lan aussi tamit Serigne Saliou Mbacké lañuy liggéeyal moo tax loolu tax ñu ñu teel koo boolewaal tamit suñu biir programme moo tax saa su nekk dañuy def loolu ndax ñenn ñu ngi ci biir daara ji ngir lan di taataan ci ay kàddu yoo xamante ni góor yàlla danañ ko jàllale ngir loo xamante ni day day day yitteel biir daara ji même lool tam ñenn tam seen jëwriñ yi euh, soxna yi loo tax ñu def ko ñaari ñaari xaaj yenn soxna yi ñoom yenn yoo xamante comme comme lu am solo la ñoom te dañuy duggaat seen biir groupe waxtaanee ko foofu noonu ngir mën a jàllal bépp information boo xamante ne amal na leen njariñ loolu moo tax ñu defee ko comme noonu nu ko Serigne Sall bëggee woon rek ñun tamit noonu la nga ko fas yéenee doxal mu soow Cheikh Saliou jërëjëf sëñ Mamadou xam ne dama lay bàyyi après dinaa dellusiwaat ci yow mu mel ni bëgg-bëgg Serigne Saliou moom la topp ba tey ji moo tax ñu taxawal li nga xam mooy fondation xidmaal Serigne Saliou di ay ndaw yoo xamante ne ay dongay tarbiya Serigne Saliou xam Serigne Saliou moo leen yaral ci loxom bu tedd bi ñi ci dolleeku nag di ay soppe yoo xamante dañoo bëgg Serigne Saliou suñu borom xiir ñu boole ñoo ñi nga xam ne ñooy dongay tarbiye ñu ànd ak ñoom fas yéene liggéeyal Serigne Saliou di ñaan saa borom am ci payuk Serigne yaakaar naa liggéey ak wax weeru dee mënuñoo bokk payoor def nañu tëfee koo xamante ni liñ tàmbalee ngi fexe ne jaayante li nga xam ne mooy liggéey nga xam ne moom Serigne Saliou bàyyi woon ci ab bëgg-bëggam ñu daal mooy sëñ maaraam yi nga xamante mooy yor li nga xam ne mooy wàllum culturel ci li nga xamante mooy arxuraan ji ak xasida sëñ Bàmba yi nga xamante loolu mu liggéeyab sëñ Saaliw loolu mënta dem bàyyi li nga xam ne mooy liggéeyab sëriñ Saaliw ndax xëy na liggéey bi am na solo loolu waaye li ko ci gënal mooy jàng xasida yi tàggat ndaw ñi ci ci mbaax ti mbaax bon nekkul ca wàlla sëñ maaraam ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ci nga xamante yaa yor wàllum culturel bi lan nga ciy dolli ak pas bi nga xamante moom lañ ci war a taxawee koy jërëjëf sëñ As comme ni nga ko waxee noonu rek noonu rek la demee ndax ku ni Serigne Saliou moom ni xësi ni alxuraan ni xasida te ñun nag dañoo jaroo ci keppaaram mu nampatal ñu ci ñun xam ci lu bëree bëri doxin wi wuutiwul rek doxinu ndongo tërbiya sëñ Saliou nam ko daan digle ci daara ji rek noonu rek lan ko lan lan lan génne toppi ko li sëñ li sëñ Cheikh Saliou di wax naan yëwun kenn danoo yewal mal buum gi buñ génnee ci biti nag donte nekkutum ci daara ji sax waaye nag la daara jee doxe sañ nañ ko doxe ci biti gi te duñu yàqal dara ci suñu su suñu yite ndax xaside yi nan ko nan ko daan jàng ci daara ci ba léegi noonu lañ koy continuer di ko jànge saa bu amee dayra la la la cay alxuraan danañ ko def ba mat sëkk teg ci xasida taxaw yëkkati ko tey it ñu ngi sos loo xam ne incha allah rabbi bëgg nañ képp koo xam ne yaa ngi ci biir daar ji te yàlla dogal na ni maam wàllum xaside yi wala alxuraan ji soriwoo ci am na ñoo xam ne spécial ñoo yor loolu te incha allah bi dinañ ci tàggat képp koo xam ne bëgg naa jàng danañ fexe ba nga jàng moo xam loo bëgg jàng muy alxuraan wala muy xasaayit loolu lépp ñun waa culturel ñu ngi koy ñu ñu ngi ci ñu ngi ci lijjanti yooyu di ko di ko lijjanti te it wax dëgg saa bun saa bun toogee lay lay njëkk surub liggéey moo dana fexe ba jàng alxuraan bu noppee teg ci xasaayit lim bu nu man waaw tey góorgóorlu ci lépp loo xam ni maam bëgg-bëgg Sëñ Saaliw la ñun waa culturel ci wàllum alxuraan ci wàllum jàng ba ci wàllum yar ndax xasida kat boo koy jàng da ngaa war a teewlu ba noppi ànd ak yar ba noppi ànd ak dal loolu lépp ñun waa culturel dañ cee dañ cee dañ ci am ab liggéey bu yaatoo yaatu yaatu yaatu incha allah mbir mi day soog a tàmbali waaye tey luy soog a tàmbali ne rek da nga koy tàmbali ak dëgg tàmbalee ko ni nga xam ni ki ngay liggéeyal da ngay xool ci la mu bëgg saa su ne rek nga cay doxee noonu te sëriñ bi moom ku ko xamoon xam ne ci xësi dara rek nga nekkoon ak arxuraan yi ak liggéeyal suñu Tuubaa kon nag ñun loolu ci leen fas yéenee nekk culturel bi ñu dox ñu nu joxit xam nañ ko baax a baax mm-hmm. tey lu nu nàmpatal la tey lu lu xam la mm-hmm. waaw muy wàllum euh, jàng ak ak moom wax dëgg yàlla moom ñun miis nañ ko bu baax jàpp naa suñu dund lépp moom lañ ci def kon jàpp naa ne buñ ko jëlee tegaat ko ne moom dañ noo jox li nga xam ne rek moom lañ yellool waaw ndax dongab sëriñ Saliou moom kum ku ko doon la nga lay njëkk ci yow mooy alxuraan dana nekk ci yow dana nekk ci yow ab yarit suñu borom dana la ko jagleel waaw lu sa àlliwa néew sori néew néew néew néew moom suñu borom dana def ci ab yar ba nga xam ni ku jaxasoo yow doo nga defaru waxu ba nag nga bëgg koo defar waaw kon nag xasida yi ñu ngi ciy soññewaat képp koo ko ko ku yaatal na liggéey bi képp fu waay nekk tey bëgg bokk ci fondation bi ñu ngi la ci yaatal liggéey bokkit na la bunt yëpp waaye ñoo xam ne daal ñun daal doxanu ndongab Serigne Saliou tër bépp daal dong doxanu ndongab Serigne Saliou moom rek la doxe doxee waaw dara loo xam ne daal suñu dara daal génnul sëriñ bi waaw ci alxuraan ci xasida yi même suba bisub Serigne Saliou bee incha allah rabbi ñun waa culturel am nañ ci ab taxawaay bu am am solo boo xam ne incha allah la ndax bis boobu la sëriñ bi gane woon àdduna loolu moom la lépp loo xam ne war na ci ci wàllu wàllum euh, xasida ak ci wàllum alxuraan incha allah rek fas yéene dana ko taxawee te bépp ko bëgg di taxawee te ñu xàmmiwun bisu kenn ak bisu nàngam ndax ñëpp rek ay taalibe bi Sëriñ Tuubaa lañ képp koo xam ne xewle nga incha allah waa fondation dina jóg an dem ba àgg la mu fa war a jàng ci Alxuraan dana ko fa jàng la mu ci war a jàng ci xit dana ko fa jàng danaan xidmaal Sëñ Saaliw rek waaye xidmaal Sëñ Saaliw moom mooy xidmaal lépp ndax Sëñ Saaliw moom mooy lépp mooy doomi Sëñ Tuubaa ji nga xam ne mooy mujj moom sax la naan a wax maan mooy mooy Saaliw waaw mooy Saaliw moom mooy Sëñ Tuubaa kon nag jàpp naan boo ko liggéeyal maam mbooleem lu takku ci Sëñ Tuubaa rek yaa ngi koy liggéeyal te doo am doo ci am xaaj ak seen sunu xidmaal Sëñ Saaliw bi amuñu ci xaaj amuñu ci seen fépp foo xam ne rek yëngu-yëngu Sëñ Tuubaa la wala lu baax la incha allah rabbi da waa xidmaal Sëñ Saaliw danañ ci dem te incha allah dana ko ànd waa culturel lépp loo xam ne aajo woon na fa muy su fekkee arxuraan la ay kaamir danañ fa su fekkee ay xasaayit la incha allah rabbi moom danañ fa jàng ab lim ni mu demee nii rek lay demee xasida yaa ngi ko mën a jàngit tubaarkàlla ñu ngi fi ñoo xam ne sëriñ Saliou ñoo leen moo leen yar ci loxol boppam waaw nga xam ne teewlu di ko jàng-jàng sel sell te bu yëkkati waaw yëkkati gi ko ne woon ci ko ko yëkkatee noonu kon nag daal ñun ci loolu rek la dox ñun daal dañuy ndawla la ay ndaw loo xam daal liggéey sëñ Tuubaa bi rek la ñuy xencu maam xool ñu leen tey bëgg ñu leen lu liggéey sëñ Saaliw waaw dañuy ñaan daal ci barkeb sëñ Tuubaa ñu gën sëñ borom gën ñu cee dimbali te musal ñu te muccal ñu ba lépp loo xam ne rek suñu bëgg-bëgg la ak ñu ko ci yaakaar lépp rek yàlla na moom ba mën ko def ci nin ko bëggee ci barkeb sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Mara kàddu yi yaatu na mat na matale na ci taxawaay bu am solo bi nga xamante yaa ngi def mu mel ni ku ci nekk ci ñun rek pàcc bi nga faree incha allahu taala yaa ngi xar sa tànk tubéy fexeel sa moroom du la ko yóbbul ndax yaamado yi dafa dafa dafa metti te buñ jëlee lu am doole teg ko ci yow muy nga la nga xamante mooy wàllum alxuraan Euh, daa doon loo xamante ni moom dëgg la liggéey bi sax gënal na sëñ Saaliw waan li ko ci gën gënal mooy li nga xamante mooy arxuraan yi ñuy jàng xasida sëñ a fekk moom daaw daaw ko durus kon daa taqoon ak nekk tamit dañoo fas yéene taqoog mooy arxuraan taqoog li nga xamante naa ne sëriñ Daawuda dina ci ñëw sax ci ni dina jàllale li nga xamante ni mooy mbokki taalibe yi nga xamante ni ñi ngi ci biti ti bëgg a duggaat ci li nga xam ne mooy daara ji fondation xidmal Serigne Saliou dina leen wax ci a tàbbis ci biir balaa loolu ñi ngi sant bu baax a baax sunu sunu jëwriñ général jëwriñ Siri nga xam ne mi ngi ci def liggéey bu am solo boo xamante nii tamit ku ci nekk ci ñun euh, ba bàyyi nga ko xel te ku ci nekk ci ñun xam nga liggéeyam taaruwaayam bu liggéey bi taaroo ba ba nga xamante ni mbokki taalibe yëpp mën nañ koo gis jëmm ji yëpp ci moom la kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ànd ko Serigne Dan Saliou yi nga xamante ni lépp image bu leer ñoom ñoo ko leeral lépp lu set ñoom ñoo ko setal kon ñu ngi leen di jaajëfal di ñaan Serigne Saliou teg leen loxo ba lépp lu ngeen naa dañuy wax ni doole ci li nga xam mooy kàddu yi nga xam mooy daara ji ak pas-pas ku bëgg dugg ci daara ji nan ngay def ba dugg ci biir daara ji fondation Xidmal Serigne Saliou asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyuwaat di leen siyaare di wax si turu fondation Xidmal Serigne Saliou waaw di wax ni moom liggéey bi nii rek la kàddu yëpp am na solo ñi fi jote jaar yëpp suñu kilifa yi wax nañ ba noppi daa mun te ñàkk ñu wax rek waaye li ngeen wax matali na lépp waaw di leen xamal ni leen daal liggéeyal yàlla lii ñu wat daal weesuwul liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla mooy liggéeyal yonent bi liggéeyal bi mooy liggéeyal Sëñ Tuubaa waaw te it jamono toll na foo xam ne jamono lëj na lëj goo xam ni ku la woo si liggéeyal Sëriñ Tuubaa de maanaam moom deseltu la la yow yaa ko desel bu desel di am yaa ko desel te it ma gis ni maanaam fi li si jiitu mooy ak bëgg te ak bëgg moom mooy lépp ndax sart yi nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa wax ni mooy sart murit ak bëgg maam da see bokk waaw te it Sëriñ Saaliw daan na wax naan nit lu bëggut du ko du ko ñaan yàlla xelam du si dem te boo ko defalee mu wàcc ko ndax ñàkk kaa bëgg mooy tax kon kenn naata léew ni ay ndaw ngeen waaye am na fu ngeen teg seen waaw kon nii rek la ndax sëñ saaliw daana wax naan jamono ji am saaliw laa waaye jamono ñëw ay saaliw laay laay doon waaye nag àgg nañ ci jamono jooju ndax ku ne xam ne ni fii ngeen toll wax dëgg yàlla ay ndaw ngeen yoo xam ne àdduna soxla na leen lool waaw seytaane it ku ne xam ne ni seytaane biñ ko laajee ne ko koo gën a bañ dañuy ndaw bu bu bu buy jëf-jëfi mag waaw kon ku ne xam ne ni yéen moom seytaane dalee na noonu waaw ngeen toll foo xam ne tey ji waroon a nekk si leneen seen xel waroon ne si leneen defoo leen ko man naatable wu man de bu sëñ Saliou dellu si waatoon jamono seen jotaay bi man bër na ma ne du ngeen ko soppi waaw ndax li may wax de sama xol laa ko tibbee leer na ma leer yàlla ni bu si bi ñëwoon tey tey tey fii ngeen toll du ngeen du ngeen changé xaw ma ñan moom waaye yéen du ngeen changé aw doxin ndax li sëñ Mara wax léegi si xas day rek xam naa loolu sax partie la waaye faaw ma am lu ma si bu ngeen ma ko mayee lu ma si lu ma si lu ma si barkeeloo rek ndax xasida ak arxuwaan mboolem loo xam ne ñu ngi koy defal Serigne Touba maanaam loolu mooy li nga xam ne moo si jiitu ndax suñ tubaa dafa wax ne li mu am lépp ci arxuraan la ko amee waaw te xas de it suñ tubaa wax na ni maanaam ab tànk la te ab tànk na ku ko topp te wàccoo bu yàggee nga jot jëmm misaal bu ne maanaam misaal na ko si mag ñi jàngal nañ ko fii si njaarim jës bu ñi jàng di jàng di jàng di jàng ba sëñ bi tàqalu ko sagom mu gi dafa jékki-jékki ne ana ana ana wax leen ma ana ko wax wax ji ma neexal ko moom fàtt nañ sax wax ji moom moo ko wax yonent bi ngir ab àll ñuy wéy di jàng di jàng di jàng mu yónnee ne neel ñuy jàng yàlla bëgg na si ñoom ñu continuer di jàng mu yónnee waat neel ñuy jàng yónnee bëgg na si ñoom ñuy wéy di jàng mooy neel ñuy jàng bu leen neexee danañ dem àjjana bu leen naqaree danañ dem àjjana loolu si xasida lañ ko amee te tey seen jotaay tey bii de xasida ngeen ko ubbee ak arxuwaan kon leer na ma leer yàlla ni seen jëf ji yàlla nangu na ko Sëñ Tuubaa nangu na ko Sëñ Saalim meen koy defal nangu na ko ndax Sëñ Tuubaa léppam la wax na ko fu bëree bëri kitaabuhu saana nii xan kulli mafsaridin wa kaf faxan nir asa kama waxaat ni kitaabun bihi narju minallaahi rahmatan wa narju bi wa nanju bihi dunya wa uxra minal karbi kitaabun karimun min kar min karimin ku fiitu bihi ahda wa zamba wa sirka kon kooku moom léppam maanaam maanaam arxuwaan la kon daal ñu ngi ñaan mbooleem koo xam ne gis nga daara ñu ngi lay tàllal loxo di la wax ne nga ñëw tàbbi si biir kër gi ndax li ñu woote de lislaam la yàlla la yonent bi la sëriñ Tuubaa la te jamono xat na xat goo xam ne de maanaam korowoo si sëñ bi amoo payam kon daal képp koo xam ne gis nga daara ji moom lii rek la wootu si suñu yëfu bopp Sëñ Saaliw daal la ñuy liggéeyal Sëñ Saaliw wo ñu yar nu ñu mel Sëñ Saaliw la bu ñu amoon àdduna ak si biir it Sëñ Saaliw lañ koy delloo waaw jàmbaar nag mooy ni ma koy waxee rek du bu bu wootee rek nga sol su mbubb dem jàmbaar mooy kan ki nga xam day dem fas yéene yóbbaale ay nit lu mu néew néew koo koy jàmbaar kon képp koo xam ne daal bëgg ngaa dugg si biir kër gi danañ joxe numéro yi nga déggante ak Sëñ Siidi mooy mooy mooy kilifa kër gi 76 591 11 28 képp ku si woote danañ la jox ay leeral incha allah di wàcc kàddu yi ba mu agsiwaat ci ñun allah. jërëjëf sëñ Daouda kàddu yi rafet na lool macha allah ni nga nuyoo ak ni nga ubbee am na solo lool macha allah eh, ñi ngi lay jaajëfal baax a baax sa taxawaay ak sa pas-pas ak sa jaayante gi nga jaayante sa diggante ak sëriñ bi ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñaan suñu borom gën ñoo teg loxo musal ñu ci cat ak làmmiñ ak balaa deegu ñaaw ci barke si yow xaddim te suñu borom roof ñu kàttan goo xamante ni dañuy jékku ndigal fu ñu toll ndax liggéey bi jékku ndigal da am solo ndax boo jëfal ku tedd ki moom dangaa war di jékku ndigal fu mu toll ndax bu sëñ bi laajee war mu soxla rek boo lambee daj kon yàlla nañu sëñ Tuubaa defal tawfeex goo xam ne bu ñu lambee daj xam naa dañuy jox ki nga xamante mooy suñu jëwriñ la moom it wax dëgg yàlla pas-pasam ak jaayanteem kenn du ko nattable ci daara ji muy sëriñ nga xamante mooy li nga xamante mooy wàllum organisation ndax yaakaar naa lépp lu dox organisation bokk na ci moo koy doxal sëriñ Modou sa taxawaay ak sa pas-pas ak ñi nga xamante ñoom nga jiite ci organisation ak loo ci wax suñu as macha allah kàddu yi am solo di santaat di ànd ak mbégte bu baax te santaat sax Saliou Mbacke di nuyu suñu jëriñ ja Serigne Saliou Mbacke am di yàlla na fi yàgg lool te wér Serigne As ndeysaan li nga ma laaj dama ci sawar lool ndax organisation wax dëgg yàlla yàlla suñu borom dafa def ni maanaam ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir liggéey bi maanaam ci biir loolu lañ juddoo maanaam dañoo maanaam ñoo judd rek seen lépp daal di seen lépp jekk te xam nga ni maanaam organisation weesul ni comme toogin fii ñu toog nii rek ci la ci la tàmbale bi njëkkit maanaam fondation Xidma Cheikh Saliou Mbacké nga xam ne fépp foo xam ne rek doomu aadama fa sàkku ngërëmal yàlla rek a fa teew te it bala faa teew faaw ñu dem saytu ko xool ko xool barab ba saytu saytu ko bu baax a baax xool nuñ fa war a nuñ fa war a demee ndax yaakaar naa ni fépp foo xam ne ña ngi koy dem daje rek euh, mbokki taalibe yi li njëkk li gën a am solo mooy déguisement yi ñuy sol dama koy faral di wax ne déguisement yi taar na lool waaye jëf ji rek moo am solo te waa xidma fondation xidma Cheikh Saliou Mbacké dañ cee dox doxin wu am solo ndax ñoom xooluñu colin wi rek ndax daa am ci doxin wu ñu doxee li fi Serigne Saliou bàyyi te siñ Saliou li mu fi bàyyi lépp da ko organisé amul lenn loo looy gis di am benn sikki saak si misaal rek boo demee daara ji tey ji nga xool ci daara yi rek nga xool gone tout tànk ba ngay njëkk a dajal mën na laa mën na laa wan li organisation teg la ci yoon kon nag waxantuma kon ñu ñu jaar foofu ba jóge fa wëlbati quoi sosaat lu mel nii def fondation xidma Cheikh kon bu ko defee suñu nga xam ne bis bii ñu dëgmal muy subaa jàmm incha allah ci samedi gi nga xam ne mu nekk bis bu bis bu màgg bis boo xam ne mbégte la si ñun képp kuy wax ashhadu an laa ilaaha illallaah yow ndaxte bis boobu la suñu Saliou gënee woon àdduna ñu war koo dundal nga xam ne faaw faaw bala ngaa dem faaw nga dem saytu xool te yaakaar naa ni maanaam bu ñu nee saytu rek fi jamono toll moo tax ñuy wax ndax jamono toll na foo xam ne nit ñi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy talax talaxi rek di dem rek waaye yaakaar naa ni comme doxin yi ñuy doxee nii képp ku képp ku koy seen rek yaakaar naa di nga bëgg yëfi ndax loolu li koy waral maanaam tey jii lu ci mel ne mu ñu war a dajee fenn foo xam ne tey jii dañu faa war a euh, ibbee ko alxuraanu karim ku ci mel ne suñu maaraam yi nga xam ne moom la jiital ci wàllum xasida ñoom ci wàllum organisation génnuñu si biir ñoom ñëpp dañu am benn communication bu ñu ànd ak ñoom ndaxte loolu lépp ci biir communi ci lay doon ndaxte boo xoolee boo ñëwee xool tooginu rek nga xam ne lii maanaam du neen kon loolu dañu ci santaat seriñ bu baax a baax di ci góorgóorluwaat bu baax nga xam ne tey jii fii jamono tool nga xam ne waxtu yu tàng na lool nga xam ne lay laaj maam fa ñu daje faaw ñu def ko tànt baas ko ngir nit ñi bu ñu ñëwee mën a gën a sawar toog ci toogin wi ndaxte ko ne xam ne ne jumaa ja tey ji bu ñu fa demee am na yenn barab yoo xam ne ab diggante boo xam ne baas amu fa faaw ñu ñu def ko tànt bu ndaw ngir nit ñi mën cee toog tey ci biir am na nit ñi ñoo xam ne ñoo xam ne bu ñëwee dañ la dalal dalal goo xam ne maanaam da ngay bëggaat yëfi bi maanaam ñim lay booleel ñooy defar seen bopp ba dañuy defaru ba pare te maanaam ànd ak koo xam ne defaru na ba pare kon yaakaar naa booy organiser yaakaar naa da lépp rek waaye lépp mat na naa lépp jàppal na ndaxte ni ma koy waxee rek solo yi rafet na lool waaye li ci biir bala nga ko mën a xam nga dugg si kon mbokki taalibe yi ñu ngi leen di soññaat bu baax kon ni ko daan waxee wala organisation bu ñu bu ñu bu ñu amee benn ndaje fenn li njëkk mooy li nga xam ne moom moo lay boole ci ci ci ci ci ci groupe bi bokk na ci li nga xam ne ñoom dañ cee bayul mat dañ cee bay seen waar bu mat sëkk ndaxte lii de màndaga la ndax ji boo ko boo ko solee tey maanaam dana am weneen toogin woo xam ne boo ñëwee si jotaay bi di ko toogee ndaxte lii lii rek màndargal la ci lii lu jiitu loolu avant di gis maa ngi di ñëw kon yaakaar naa kon mbokki taalibe yi dénk nañ ñu loo xam ne nii nekkul lu ñuy làmbatu wala lu ñuy lu ñu xam la te it saa bu ñëwee ci ndaje yi ku ñu fa fekk si da nga xam ne lii kat organisé nañ ko te loolu rek am solo kon mbokki taalibe yi dañuy yemale ko kàddu yi bañ ñëwaat incha allah ñu fas yéene yeggale li ci des jërëjëf si ñaas jërëjëf sëñ Modou kàddu yi rafet na am na solo bu baax yow it ni nga du àddoo tamit am na solo bu baax a baax ci moo ko doxal ak ak ñi nga xamante ñoo topp ci ginnaaw di ci def liggéey bu am ñu ngi leen di ci jaajëfal baax a baax mu mel ne dañuy joxaat kàddu yi seexu naa mi moom ah, am ndajam Baay Faal wax rawatina ndajam murit fu mu nekk kafe ak sëñ Bamba gi a jub bokk na ci ñi nga xamante ñooy wàllum kafe gi yor li nga xam mooy axlu kafe ñi xam ne ñoom ñooy ñooy noosal murit yi ndax murid lépp loo ko mën a jox te jox ko xasida sëñ bamba ak avec sëñ bamba gii noosaloo ko kon yow it bokk nga ci li nga xamante ni yow ci tedd liste bi ci nga bokk sëñ Seexuna di sunub sëriñ waaw jërëjëf sëñ As ñu ngi lay ziyaarewaat bu baax di santati sëriñ Saliou santaat sëriñ Saliou bu wér a wér di wax nag café gi moom dafa nekk loo xam ne moom mënut ñàkk ci ndaje ndaje moo xam ne dañ fay daje di liggéeyal sëriñ Saliou mënut ñàkk dañuy di jël nuyoo di ko jiital si suñ suñ jëwriñ suñ xaadim saar di ko soññuwaat bu baax di soññuwaat suñu mbokk taalibe yi rek suñu mbokk góor yàlla ak suñu mbokk soxna yi dañ wax ne liggéey bi moom du du suñ seexu naa rek moo nekk ca kaw déedéet liggéey bi moom seexu naa ak suñ xaadim ak keneen ak keneen ñëpp a ngi si biir ku jàpp ne daal mbir mi moom bu doxee yow la doxalal bu doxutit yow la dox doxalut na ñëpp daal jàpp ci mbir mi bu baax a baax te xam ne daal mbir mi moom liggéeyal Serigne Saliou moo ko tax a jóg du loo xamante si ne da ngay woote ngir jëmale sa boor déedéet dañuy liggéeyal ngir jëmmi Serigne Saliou dañuy ñaan yàlla rek yàlla taxawal ñu affaire gën a jëm kanam ci barkib Serigne Saliou jërëjëf Serigne As. jërëjëf Seexuna sunub Serigne kàddu yi rafet na am na solo bu baax a baax ci taxawaay am solo moom mi nga xam moo doon jël kàddu sànq di àddu mooy li nga xam mooy wàllum café gi moom mooy noosal murid yi ci jataay bi kon ñu lay jaajëfalaat bu baax baax a baax mu mel ni sëñ Mouhamadan moom it dañ koy jox rek mu tàggatoo mel ni waxtu yooyu dañoo xaw a xoj te yitte xaw naa bëri te am na lu programme bu ci bari boo xam ne ñu war nañ ko taxawal xam naa dañ koy jox rek moom mu tàggatoo am lu mu ci soññewaat mbokki bi jaaree fa noonu tàggatoo incha allah. rek lañ ci yokkaat moo di li nga xam moo di communication dafa am nu muy doxee ndax communication mën naa wax ne sax mu ñoom ñoo ngànk liggéey bi di ci yaaraat bu baax a baax suñ jóori muy Serigne As. ndax biir communication dafa am trois parties bu jiitu mooy soo bëggee dugg ci biir daara ji dañ la dugal ci benn daara joo xamante ni moom leen lay laaj leen loo xamante ay questions yoo xamante da nga ko war a jàll ci biir daara ji ngir mu mën a xam sa taxawaay ak sa tolluwaay ci biir liggéey bi ba topp tamit moo di euh, ñenn ñoo xamante ni kenn ku ne ci biir communication kenn ku ne dafa am lu ñu la dénk mu fekkee jëwriñ si naas moom moo yor wàllum publication bi bépp naatal bi war a jàll bu nekk ci moom la ci moom lay njëkkee ba pare ba mu ba mu validé mu a mën a jàllale am ñeneen ñoo xamante ñu yor tamit ba pare da nga koy dugal ci biir communication ban xool ko ba xam benn fët aussi tamit war naa jàll war a wërta jàll ñu ñu doog ko mën a jàllale noonu la amee ci góor yàlla aussi tamit noonu la amee ci ci ci biir soxna yi nekk nekk noonu tamit eh, yenn yoo xamante ni tamit eh, ñenn ñoo xam ne am soxla moo xam lépp lépp tamit lu ci mën am su ko jàllee ci waa communication ñoom danañ ko fa jàllale ban xool ba xam war naa jàll fépp wala wërta jàll su waree jàll da nga koy waxtaan ak jëwriñ Serigne As moom ba mu jàllale ko fa bu baax a baax ndax am na ñeneen tamit ñoo xamante ni ñoom ñoo ñoo ŋànk liggéey ci biir communication ñoom ñoo yor wàllu montage beeg yooyu yëpp ci biir ku ci mel ne jëwriñ bi ndax jëwriñ Serigne Sidi moom tam moo yor wàllum woowu moo tax ñun ci santaat bu baax a baax di leen jaajëfalaat di leen wax ne liggéey bi na liggéeyu ñëpp la ubbi nañ ñëpp suñuy buntu ndax leen rek lañ si jublu ngir liggéey Serigne Saliou liggéey Serigne Saliou ku ko dégg ku nekk nag dafa am leen loo xam dafa war roog moom mu di leen jaayante yi mooy mu fekkee ñu ci góor yàlla yi chaque fin de mois danañ def la tout ngir jaayante ñaari téeméeri dërëm ndax ñaari téeméeri dërëm moom yomb na trop mu fekkee biir soxna yi dañ ciy jaayante tamit li nga xam moo di téeméeri dërëm téeméeri dërëm tamit yomb na lool waaw di di di wax ñëpp nag ngir ñu ñëw ci biir liggéey bi ànd kook ñun ngi jëmmi Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké loolu doom moo ñu tax di liggéey jërëjëf sëñ As jërëjëf sëñ Mouhamadane ni nga tàggatoo am na solo baax a baax ñi ngi lay jaajëfal di ñaan saa borom defal la tawfeex ba lépp loxo mébal ko ci daara ji fondation xidmaal Serigne Saliou suñu borom tegal la ci loxo ba lépp boo lambee daj ci kàttan maam Serigne Fall ba mu dina mu mel li ñu ci sofaat leneen la rek mu mel ni comme ni ko Serigne Saliou bëggee woon te ak Serigne Saliou na nga ko taxawaale woon te daaree xel kom ak fépp foo xamante ne daaraam la rek mu mel ni eh, ci ñu ko déggee ci mag ñu baax ñi wala suñu jëwri ñu ni sëriñ bi jàngal na ñi nga xamante ni fukki junni ndongo tar eh, ñoo xam ne fukki junni ndongo yoo xamante ni def na ci ñoom xam-xam jàngal leen yar ak diine ñun noonu lañ taxawee bëgg fukki junni membre yoo xamante ni dina ñëw jaayante ak Serigne Saliou fii ci liggéey bi fondation Xidmal Serigne Saliou weeru dee ñu àddiyee ñaar téeméer yoo xamante ni dinañ ko jël bu boobaa mbooloo mi dina gën a yaatu addi ji dina gën a yaatu ba man li ñu bëgg ba jëfal Serigne Saliou yëpp danañ ko jëfal ci addi jooju kon ñi ngi woo mbokki bi yëpp rek képp koo xam yaa ngi dégg suñu kàddu rek xamal sa sa soññee képp ku ci am ay leeral boo woote ci numéro yooyu daw ci baat écran bi incha allah waa kay jërëjëf sëñ As jàpp naa ni moom wax ji lépp mat na xanaa dañuy santaat sëriñ bi rek tey ñaan laat sëriñ bi muy àgg fi loolu di gën a wér di yëkkati ay kàddu di ko jëmale ci Serigne ne mooy jëriñu liggéey bi wax dëgg yàlla yitte ji mu ko jox ak ñor gi ko ñor nga xam ne saa su nekk mooy woote mooy lijjantil boppam jóg bu amee mooy njëkk dem lu mu mën doon mooy njëkk a mooy mooy mooy moom lañ ci njëkk gis muy wàllum addee jéeg ak mu mën a doon nga xam ne jo nekk na jëwriñ xam ne daal moom jafe na ci jëwriñ liggéey bi rek comme ni ma ko waxee léegi rek maam ñun moom dañ cee gar suñu bakkan ndax ñun dañoo xamul lu liggéey Serigne Saliou waaw te ñun ci leen ci ci leen màgge te incha allah rabbi ci leen fas yéenee faatu waaw liggéey bi sëñ xam te te tey lépp dañ koy teg ci xam-xam ndax lu nu li ma ko waxee léegi rek waaw li ci jiitu nag mooy li ñu ci jiital rek muy alxuraan ji ak xasida yi ak lépp loo xam ne lu baax loo xam ne mayees na ko cee boole kon nag ñu ngi delluwaat di yaatalaat liggéey bi daal képp koo xam ne daal am nga ci yéene force wuñ ci kenn neexuluñ ci kenn it ndax xam na liggéey bi moom sëriñ bi moo ko yoral boppam te fépp fu mu àggit incha allah rabbi sëriñ bi rek moo ko fa mën a àggale ñu liñ ci bëgg li ci sëriñ bi bëgg rek moo ci am waaw kon nag ñu ngi ñaanalaat sëriñ Cheikhoum sëriñ Saliou mu yàgg fi rek te gën a wér ak sëriñ Saliou Mbacke daaray nga tàggatoo am na solo bu baax a baax moom mi nga xamante moo fare ci wàllum culturel njàng mi ak njàngale mi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di ñaanal sëriñ Saliou tegal la boppam loxo ba lépp loo ci yéene rek suñu borom def ci tawfeex lu foo ko barke maam Cheikh Fall xam naa dañuy jox suñu daawdu moom mu jaar fa tàggatoo moom mi nga xamante nii moo yor li nga xam ne mooy kàddu daara ji nga xamante ni képp ku bëgg a agsi ci daara ji dina la tegtal ci yoon wi ngay jaar bu mën agsi ci bi daara ji koy jox ay kàddu rek mu daal di tàggatoo doon tàggatoo boo xam ne du tàggoo incha allah. waaw comme xam naa ne <clears throat> kàddu yi yëpp moom matale na am na solo waaw kon moom li ñuy fas yéene wàcce foofu suñu kàddu rek waaw di woo ñëpp di xamal ñëpp daal tàllal nañ leen loxo waaw liggéey bi moom mi ngi nii rek fas yéene wuñ mu laal suuf. waaw comme que ñi ne si caaxaan sax moom ñu nekk ñor na leen dañ cee woy deng kon jël naa ñun ñi nga xam nag dañoo woote jëm si yàlla sëñ moom ay mbiram moom noppi nag ba noppi sëñ Tuubaa moom ku mu ku ne ku mu ku mu yan ku ne moo lay téeñal dañoo gëm dañ cee nekk nii dikkee rek waaye moom ni ko sëñ bi rek noonu lay amee sëñ moom li wër mooy lu mu bëgg dana am fas yéene bokk koy xanaa si ña koy sottal la ñuy wax waaw ñaan naan sëñ Tuubaa moom dalay dalay dalay dalay liggéeyloo taaw lépp ba noppi bàyyi la ak sag bi loolu daal moo si nekk kon sax boobu daal moom la ñu yéene mbokk jullit yëpp loola war a ñu tàll ñëpp suñu loxo di leen wax ne nañu ñëw ànd ak ñun liggéey bi waaw ñu ngi siyaare ñëpp di bëgg ñëpp waaw di joxaat ñëpp seen wàccuwaay di leen jéggu leen ñi yéen ñëpp nag wax dëgg yàlla ku ne xam ne ni am na lu ngeen bàyyi yéen ñu toog fi ñëpp ay responsable kenn ku nekk am na loola loola war nga am loo bàyyi mooy bëgg gi ma wax rek lii nag day tegtale bëgg gi waaw ndax jamono moo xat faaw da ngay bàyyi dara ngir def dara waaye ndokk nag bañ bàyyee maanaam ndax wóor na mënu de suñu jotaay bii buñ ko wuutu woon it mënuñoo nekk si lu gën a farata jotaay bi kon loolu nag sant yàlla bu baax di ñaan daal sëñ bi moom mi nga xam ne moom la ñuy liggéeyal yàlla nañu yàlla nañu gàttandul boppam te téel ñu boppam ba lenn lu yàq ndax seytaane moom li ba maanaam euh, li baaxut loolu noppi na ci li baax rek moom la soxla kon suñu jëf jii daal yàlla na dugg ci jëfi sëñ bi yàlla bu ci seytaane am wàll yàlla na ko sëñ bi nangu bu ko nangut yàlla na ko ful bu ko fulee yàlla nañu ko làqal foo xam ni yàq du fa jote te seytaane du fa am wàll ba faw ci barkeb Serigne Touba barkeb Serigne Saliou jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Daawda kàddu yi mat na matale na ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax yow it suñu borom dafa la tawfeex gën a wéral baat bi yokk fan wi yokk man-man gi barke maam Cheikh Ibra Fall Lamp Babu Mouridina xam naa ni dañu jox jiwriñ moom it mu tàggatoo moom mi nga xam ne mooy wàllum organisation moom it muy sëriñ Mor bu sa ñëng nga xamante ni day jàmbaar di jàmbaar ñaye xare ci liggéey bi xam saa su nekk mi ngi ciy wone pas-pas ak jaayante xam ne xam naa da nga koy jox mu tàggatoo jaare foofu rek mu doon tàggatoo bu du tàggatoo jërëjëf si ñaas waaw masha Allah jërëjëf kàddu yi am na solo mën na matale na waaw ni ma koy faral di waxee rek di santaat yàlla bu baax na ko organisation moom comme ni ngeen ko gisee nii rek waaw juñu doy na doy na borom xel maanaam daal ni ngeen ko gisee nii rek xam ngeen fondation Xidma Cheikh Salim Mbacké ci lii rek lay dox te it ànd nañ ci mbokk taalibe yoo xam ne ni maanaam macha allah maanaam ni ma ko waxee rek liggéey moom nekk na loo xam ne ni maanaam boo du gisee rek maanaam ki yor féete si organisation bi sax nga koy noppal ngir li ngay gisee jotaay bi kon dañuy sant bu baax a baax a baax di sant nag suñu jëriñ suñu si di jaane ñu koy sant bu baax macha allah di ñaan yàlla suñu borom yéen bi o yof lool wax dëgg yàlla nekk jëriñ yoo xam ne ni macha allah maanaam maanaam da ngay bëgg saa su ne rek ngay déggante moom ngir maanaam fi mu fas yéene jëmale liggéey bi nga xam ne maanaam léppam saa su xëyee rek maanaam liggéey bi ni mu gën a jëmee kanam rek te loolu rek noonu rek la may ñaan yàlla bu baax ñaanal yàlla suñu borom yokk guddal ak fanam yenal ko yen bi mu oyof lool ci barke Cheikh Saliou Mbacke sëñ As tamit yow ñi lay ñaanal man ma lay wax rek nee na sëñ Saliou dëgëral baat bi ndaxte li yombut wax dëgg yàlla yombut mu jotaay toog nga yëkkati kàddu wax yombut kon bu la suñu borom dimbalee ba nga man ko dañ ñaan yàlla suñu borom dëgëral sa baat di santaat suñu dan saaliwu ñi nga xam ne moo nekk ci wàllu moom it wàllu communication ñoom it lépp loo xam ne yëf yëf yegg na fa rek ñoom ñoo ko yeggale ñu sant bu baax a baax a baax xam nag ku lim juum waaye maanaam daal suñu xol moo sedd ni yëfi doxee te loolu lépp mu ngi ci biir organisateur organisateur loolu nag dañ ci sant yàlla bu baax di sant suñu Seex naa mi nga xam ne moo yor wàllum café gi ànd koog suñu Xaadim Saar nga xam ne maanaam ñoom waxtu wu ne saa su ne rek yëfi duñu du tardé te ku ne xam ne jotaayu murit moom di ci naan kafe day am solo lool te it ñoom it niñ koy doxalee macha allah loolu lépp maa ngi ñaan yàlla suñu borom maanaam kattan na ñun defal ñu ak man ak tawféex ba loolu lépp ñu yeggale ko ñu fas yéene liggéeyal Serigne Saliou Mbacke ñu yeggale ko ci jàmm ak salaam di ñaanal suñu jëriñ Serigne Saliou Mbacke andi mu yàgg fi lool te wér Serigne Saliou Mbacke andi yàlla na fi yàgg lool te wér ndaxte daa nekk jëriñ joo xam ne maanaam euh, waxam rek saa su maanaam boo ciy dox maanaam da lay teg ci yoonu jub te loolu rek la doomu aadama bi sàkku ci kaw suus ak njub ndaxte gis ngeen ni jamono mel waaye sant nañ ci yàlla baax ba suñu ba ñu sëriñ bi booleeg moom wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo jërë ngeen jëf jërëjëf sëñ Modou Bousso kàddu yi rafet na am na solo bu baax yow it yàlla na yàlla suñu borom defal tawféex ba li nga mébét ci daara yi suñu borom jotale la ci ba lépp loo xamante mébét nga ko ci am bëgg amu bëgg rek suñu borom defal la ci tawféex bu baax a baax mel nañ jox Ahmadou moom it nga xamante nii moom it moo yor wàllum café gi moo noosal murid yi mu ko tàggatoo rek tàggatoo bu du tàggatoo. waaw jërëjëf sëñ As ñu ngi santaat bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin di soññiwaat suñu mbokk yi rek di wax ne ahlu kafe gi moom mu ngi noon noonu fondation xidmal Serigne Sall ahlu kafe gi mu ngi si biir ñëpp képp koo xam ne daal bëgg ngaa bokk daal moom danga tàllal loxo sëñ siit jaade ci numéro 76 691 11 28 moo wax la ci yan programme nga nga mën a nekk boo mën a bokk ci liggéey bi jërëjëf suñu as jërëjëf Ahmadou moom mel ni moo tëj jataay bi di sunub sëriñ ñu ngi koy jaajëfal moom baax a di jaajëfal mbokki taale bi nga xamante ni amoon na leen fii ci plateau bi sëñ ñu ngi koy ziar baax mi nga xamante moo yor féete ci li nga xam mooy wàllum organisation astaghfirullah li nga xamante moo mooy li nga xam communication ñu ngi koy ziar bu baax a baax moom it di ko jaajëfal ci taxawaayam ak pas-pasam ak détermination bi nga xamante am na ko ci liggéey bi ñu ngi koy jaajëfal baax a baax di ziar baax si Mour Bousso mi nga xamante moom it euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ziar sëñ Mara mi yor wàllum culturel ñu ngi koy ziar baax a baax sëñ Daouda mi yoroon kàddu daara ji te sëriñ Siri jox ko ndigal pour mu taxawaal taxawaal bu am solo boobu sëñ Amadou ñu ngi lay ziar bu baax a baax di ziar mbokki taalibe bi yëpp nag di ziar baax a baax di béral nuyoo ak ku cant si Siri Diané nag mooy bu baax a baax ndax gis nañ taxawaay beeg pas ndax ku yokkut ku ne rek yaa wàññi waaw te wax sa baaxuwaay du wàññi si sa mbaax dara donte da ko yokk kon ñu lay jaajëfal lépp loo xam ne am nga ko yéene ci daara yi suñu borom defal la ci tawféex barki maam Serigne baax a baax di ngaabu tamit soxna yi nga xamante ne wax dëgg yàlla waroon na ñoo am ay éléments yi sax yu toog ñoom ñu am ay kàddu yu dolli waane xëy na yitte yi ak tënk bi ñu leen tënk ak soxna rek xam ni daa muur boppam looloo tax ñu woyofal leen waane ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax nday ay jàmbaara baax ak ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi bindu ci daara ji am carte membre bokk doon membre ci biir daara ji te nekkuñu fi nekkuñu biir Touba ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaar baax a baax di leen wax ni seen addi ñi ngi koy gis seenu jaayante ñi ngi koy gis seenu bëgg tamit ñi ngi koy gis kon yàlla na leen seen isaalu téel boppam waaw ñi ngi leen di jaay di jafal bu baax a baax a baax seen bokkum taalibe As Mbaye chargé de la communication fondation Xidmal Serigne Saliou di leen wax nag ni liggéey bi mi ngi ni door na nag te tàmbali na bu baax a baax li Serigne Cheikh Fall Baye góor waxoon ku ni gaañaa nga fa gaañee dem bala te ñun ñu ngi ci yoon wi ku ñëw tamit dinañ la ci bàyyi te ñun ku ñëwut dinañ dem te yoonu jub na kocc leer na naañ képp ku ca àggul ku ne da ngaa doxut sëñ Amdi Xaadim Fall daan na wax naan liggéey bi dee wu fi dara dee deelu mayewu fi dara dee wet moo fi maye dara kon ñun nan dee wet ci liggéey Sëriñ Saaliw bi waaw kon ñun buñ déglu dara nan dëgmal li nga xam mooy suñu liggéey ndax liggéey bi doon na foo xamante ni toll na foo xamante ni wax dañ koy bàyyi suñu ginnaaw te jëf ne suñ kanam ñu dox jëm ci te loolu rek ki nga jiitu rek moo mën xool sa doxin wu ñaaw kon amuñu dara lu ñuy tiit te ñun xidmaal Serigne Saliou la ñuy liggéey te xidmaal Serigne Saliou yemaloon ko ci benn pàcc rek daa am ay daa daa lu bëree bëri daa liggéey boo xam ne daa am liggéey liggéey bu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di tuub ci kàddu yu baax a baax a baax lépp lu ci jub rek ñu sant ko Serigne Touba Xaadim Rasul lépp lu ci dëng bëgg it ñu ngi leen di tuubal bu baax baax tey jégalu bu baax a baax ci a baax Serigne Mbacke baaxum mi nga xamante day sërub Serigne baaxum nekk fële ci daaru baaxum nga xamante day bëggee daaru baaxum te tamit di bëggee li nga xamante mooy ngaabu média ndax saa su nekk ñi ngi ciy déggante moom mu ci def ay ñaan yu baax a baax kon sëñ Mbàkke baaxum ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax fële ci daaru baaxum di ziar bu baax a baax sëñ Abdoulahat baaxum sa jëwriñ ñu koy nuyu di ko ziar di ziar waa daaru baaxum gépp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu bi barakati maam Cheikh Ibrahima Fall